ci yéenekaay yi ñu xëyandool dañ ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf école bi ñu bëgg a tijji yéenekaay boo tijji fekk fa xibaar ba journal L'As xëy ko tuddee plan ngir sauver njàngum ren mi élèves yi war a def examen ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin ca dañu war a ubbi yeneen élèves yi tollagul ci def examen ñoom seenub école doxee na fi tëj Mamadou Talla ministre éducation nationale yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ab tournée bu mu a tàmbali ngir waajal ubbi teg école gi dana dem ca Ziguinchor dem bi bëgg ubbi kàdduk Mamadou Talla ministre éducation nationale ak Dame Diop ministre formation professionnelle wax na fi mu fas yéenee jaar bu ubbi école yi ngir gone yi waajal examen dem jàngi ci lu àndut ak benn ñol-ñol soleil national moom it xëy ñoqali ci wax ji ba dañuy wax ne ay coppite mu di réaménagement la ñu indi ci calendrier scolaire bi examen certificat yi ñaar fukki fan ci weeru août ca la ko jàpp examen BFEM yeeg yu baccalauréat yi ñu jàpp leen la nar a li ñu daloon ñaari fan ci weeru juin bi école bi demee bay waaj a tijji te tijjiwul loolee mën naa amaat sa ne am nay syndicat jàngalekat yu tàmbale yëglu ak kuréel gu ci mel ne collectif des gouvernants scolaires ñoom li ñu gis moo di gouvernement bi dafa bëgg a patam patamee yëf yi mbirum taf yëngal la ko bëgg a def ndax li ñu naan protocole sanitaire respecté wuñu ko ci mbir yi te it bàyyi wuñu xel nawet bi te daanaka dugg si na ba a ñi sëq njàngaleeg njàngale mi du ñëm ñëpp ñoo ca déggoo li ñu bëgg a def moo di nawet bi dugg si na te ku ne xam na ne fii ci Sénégal jàngi cib nawet yomb fi Cheikh Mbow njiital ko si def ni ñu ci xët mu njëkk la quotidien gouvernement bi yéenam rekk la matal ne li ko toxoon di dañ dañi moo di seet nu mu mën a def ba weeru soin gi bañ koo rëcc l'observateur nañu loolee lépp bu jàllee leneen coow am na ca coow li moo di ñi seeni doom nekk ci école privée yi te war a def examen dafa am ci ñoom ñoo xam ne boroom école privée yi dañu ne leen balaa genn gone dugg ci classe yi in fokk dañuy ñuy fay weeru mars gi weesu fay weeru avril gi weesu fay weeru mai loolee nag la yenn parents d'élèves yi mukk xel xalaatul ñuy fay lu seeni doom jàngul Bakary Badiane bokk ci kuréel gëmb parents d'élèves ci réew mi nii ci l'observateur école privée yooyee di laajub xaalis bu ñu bëggee leen fay nañu ko laaji état bi état boobee njiitam di Macky Sall mi ngi waaxu waaxu mu rëy boole ko dëgg tànk yu dëgër ci xët mu njukk enquête dina kay ñaxtu yeeg xultu yeeg li ñu jëm enquête dina kay nañu li mu amul ab premier ministre bu nekk ci wetam moo waral moom président Macky Sall moom rek kay jàmmaarloog coow li di ko ñàkkantee gaay yi wéet gu mu wéet tax na lu dikk rek daal ci kawam ci kaw taxawaay bi gouvernement bi amee ci xeexum coronavirus bi Maurice Soudieck Dione di docteur ci wàllu science politique ne waa enquête dina kay weñ gaa nga bañ a ca mbànjaxaan ga yëf yi dañu cee teel a dugal politique moo tax it politique baa ngi ne ci lëj jëwriñ gi ñu dénk wàllu santé ci réew mi di Abdoulaye Diouf Sarr xëy na ne lëj A waxtaanam ak journal Source A journaliste Source A yi grand nationale la ñu ko tuddee député Aïda Mbodj mi bëgg ñu ko ci assemblée nationale mook Mansour Faye ngir ñu leeral ci wax joojee ci la Abdoulaye Diouf Sarr njëkk a tont nee na Aïda Mbodj la bu ñu jox cër ci réew mi li mu def waree la en tant que te man Diouf gisuma ci dara lu ay aw yoon may ngir ñu mën a dem fa léppi leere di ci assemblée nationale ngir leeral fa suñu taxawaay ci coronavirus bi bi libération nee nañu fa mu tegoon tànkam coronavirus juróom-ñaar fukki doomi aadama ak juróom-benn la jàngoroy coronavirus gi rayagum ci Sénégal te ci ñoom fukk yaak juróom-benn ya journal Libé nee nañu ci ñeenti fan yi ñu weesu ca la ñu faatu Le Quotidien nañu ca Fatick am na fa juróomi élève sandarma yu fa corona Vox Populi nañu ca Touba dafa am seen nas ndaw su amee woon coronavirus ngi tolloon ci juróom-ñaar fukki at ñu yóbbu woon ko ca centre de traitement ba ca dëkk ba doon ko fa faj ay mbokkam dem jëli ko génnee ko l'hôpital yóbbu la faatoo faatu faatu yekk jamono ji ñoo ngi coono bu rëy